wayjuri ndong yi ànduñu ci ndogal yi kilifa yi jël la ngir soppi loi 2016 ci pon ak ni ñu koy jaayee fii ci Sénégal. biñ gisee ne am na loi bu amoon 2014 14 du 28 mars 2014 nga xamante ni sax amoon na réglementation pour njaayam cigarette ñu gis ne am na beneen loi bu ko modifié bu beneen décret bu ko modifié jaar en conseil de ministre euh, bu passé bii nga xamante ni dégg nañ ci wewu béy ñu ne dañ koy libéraliser dañuy fexe ba euh, cigarette yu bees yooyu ñëw dugg ci Sénégal ñu koy jaay ah loolu ñu ne nag jóg jot na mais tey occasion la pour yi ñu waxtaan ak yéen journalistes yi nga xam ne da ngeen ay fësal euh, xibaar ñu wan wan wan suñu naqar ci projet boobu décret boobu ñu ne jàll na conseil des ministres benn loolu loolu benn ñu wan suñu naqar ne décret boobu ànduñu ci dañ ko war a retirer. fi mu ne nii jaaxle jot na moo ne amoon na ay jéego yu am solo ci xeexum tux ci atum 2014. waaw jot na vraiment ñu tiit parce que li xew jamono ji vraiment dafa nekk loo xamante ni lu lu doy waar la. Euh, buñ ko mënee woowee sax mën nañu wax ne musiba la ndax euh, tey jamono ji xeetu cigarette yu bees yi ñu gis muy génn xale yi di ko utiliser parce que lii ay mag duñ ko tox ay xale yu ndaw ñoo koy tox te xale yu ndaw yoo nekk ci école yeeg ci lycée collège yi moo tax jaadu na tey ñu lëkkaloo ak ñi nga xam ne ñoom ñooy association parents d'élèves yi pour def euh, taxaw seetlu bi fexe xool naka la ñuy def ba lii mën a génn ci école yi parce lii ñu bari mu ngi ci saagu élèves yi mais ñu bari xamuñu ko donc muy loo xam ne lu doy waar la donc euh, mais mu ngi euh, mu ngi lu ko lu ko waral mooy industrie tabac moo nekk di changer forme euh, tabac yi muy jaay ñu ngi koy woowee transition dañuy jóge ci cigarette classique bi ñu xamoon pour dem ci xeetu cigarette yu bees yi donc loolu li si jublu mooy <coughs> fexe vraiment recruter ay xale yu bees ah pour que vraiment seen business yu continuer dox alors que organisation mondiale li mu wax dafa leer nee na produit yi. ndegam kenn xamagul ni koy defaree fu mu jógee lu ci nekk ak yooyu am na tabac rek dañ ko war a interdire ba ñu xam vraiment lan moo nekk ci biir parce que vraiment euh, maintenant nag malheureusement gouvernement du Sénégal ñoom dañoo opté pour réglementer ko alors que boo ko réglementer bis nañ ni produits yi xale dañ koy détourner mën nga tux yàmba utiliser ko mën nga tux cannabis utiliser ko te kenn du xam ne yaa ngi koy tux parce que euh, parfum bi ñu ciy def moo tax donc comme dafa am ay parfum donc moo tax yow xet boobu du la xeeñ. donc alors que bu njëkk yamba dañ koy tere mais léegi boo amee bii mën ngaa tux yamba te kenn du la jàpp. am na ci xeetu pon yi yoo xam ni fowukaay sax lay nurool moo tax xale yi ñu ngi gën a teel a fowe tox. dernière étude mu ngi wane ni âge initiation tox Sénégal est à l' âge de à l' âge de sept donc avec produit yii nii waxuma la sept ans waaye bébé sax xanaa mën na koo fowe ndax boo gisee da nga yaakaar ni gadget la fowukaay la te industriel yi dañoo xarañ. mën dañ koy jaarale sax ci ay bonbon ay bonbon dañ koy jaarale ci ay jouet donc lépp rek pour attirer xale yi gadget yi fowukaay yi nga yaakaar ni fowukaay la fekk vraiment euh, lu doy waar la donc vraiment ñuy alerte encore une fois parents d'élèves yi vraiment wax nañ ah kilifa diine yi également dinañ wax parce que dinañ dem seeti leen vraiment ñu fexe porter plaidoyer bi pour que gouvernement bi dellu ginnaaw parce que lii buñ ko bàyyee mu jàll wax dëgg yàlla musiba la ko LISTAB nag ànd na ak FENAPES ak LUNAPES di soññ wayjur yi ñu aar gone yi ci tox